¡Gracias! <laughs> ak li ñoom ay saxaabaam ñoo doon jaamu yàlla. waa fi sunubi wa sunubal muslimin. ci kër la ci kër seen bàkkaar a a a Thank you. leen Iblis jàpp leen awa da ngeen a gën a te da ngeen a gërëm may doxal lépp dama koy sant yàlla yàlla réew mi gërëmul. xajal na ma njàqare ma am. yàlla gunge ma. lii ma taxul ndox yàlla. mu rekk may borom ànd. mooy amal lu ko soog soog yàlla lu ko neex bàyyi. mi dal le ma kon kan le that particular والأمين والأمين كتاب ma alxuraan ak sa sa kabal wala

أحدا jëlee ci man. amoon naqar wa ma amoon ca bàyyi ko yàlla xam-xamam gërëm gërëm yàlla may na ma leer bu ñu jullit dem yi man xaadimu rasul amiin waay amiin ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax Moustapha muy mel ni waxtu bi dafa sori waaw waaw waaw président Frey Yoff <laughs> ak Moustapha Gueye mutu fa mu jëwrin waaw waaw ak Baye Dame waaw suñu way jóg ak suñu waa suñu papa Pape Malick ak Baye Ousmane Sylla waaw ak sëñ daam waaw ñoom ak kilifa yëpp rek waaw tubarkàlla ak sëñ Ibou Cissé bu Super Étoile Mbacké Mbacké ak association a yu yow ànd ak seen président président Mor ngay Thiam waaw ñoom it teew nañ ak seen délégation ak Serigne Ibou bajaan jóge ba Allemagne ak képp ku fi teew rek musafa muy mel ni ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañ lay jox bu ko defee nga waxtaan ci ak tënk rek ndax fi ñu toll nii daanaka waxtu wi sori na waaye comme dañoo nekk ci layatul xadr nga ñëw ci guddi gi ñëw ci diggante alxuraan historique bi ba ñu wàccee ci suuf ci yonent bi alayhi salaam waaye bala ngaa daaneel kàddu yi nga ñëw ci diggante Serigne Touba ak alxuraan foofu nag du ma la bàyyee nga dem ndax doo jàll mukk te jaaroo ci isa katabtu aw xaraxtu xarfaa xustumanan te doomu saakal cheikh bi su sëriñ barki Sëriñ Tuubaa mat ya xayrul wara xaadali maa lam yara sëkli wa sëkli fi daari laa yura yàlla bi ma bindee bu noppi giñ ne doon sàkku mel ni man xaari an mumkinin nga xam ne lottul ci def dara moo ma def ni ma toll man xaadimu rasul suñ na zalama adaani nee na ku ma noonu ku ma noonu am nga naqar wu rëy ndax ci yàlla yàlla ngi jëm yaa la ñuy tàmbalee suñ sëriñ bi guddi gi ñu ne ñu di ko màggal muy leelatul xadar am na ñu ko jàpp ci benn si ci nuit ndax nee na ñu inna ansalnaahu fi leelatul xadri wa ma adraka may leelatul xadri laylatul xadri xayru min alfi shahri leylatu ñeenti arab la alxadri juróom سميناه في ليله الخدري وما ادراك ما ليله الخدري ليله الخدري لو دفع لك تي 3 فوا تي ساري نجي 9 عرف يوي دي ليله الخدري ملتيبلي بار 3 مو جخنا 25 من فوق ليله الخدري ام من جديد إن أنزلناه في ليلة الخدري وما أدراك ما ليلة الخدري ليلة الخدري خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من, من كل أمر سلام هي حتى من الفجر سوكا وني 30 مولا لجوه waaye baatu hiya hiya mooy vingt-septième moo am ñu ne kon vingt ci lañ war a lettre xadar maa ngi ñëw am ñu ne déedéet weer fukki weer la ak ñaar safar rabiul awal rabiul sani jumaada lula jumaada saniya rajab shaban shawal zulqaada zulhijjati muy fukki weer ak ñaar weeru carañ tollu muy sëru ramadan juróom-ñeenteelu weer wa da ngay bàyyi ñetti weer ya ca des muy kor yi ak diggi ak tëbaski moom la ñu multiplier par neuf mu jox leen vingt sept ñu ne ba kon ni loolu xam-xam la de ñooñu jàpp foofu waa kër Seexu Tijaan ñu ngi koy màggal te foofu lañ jàpp boo demee ci tafsirul Jalaalayn lu wér la ñoom ci loolu lañ jàpp waaye sëriñ bi moom dafa wax ne moom moom yàlla moo ko may leeru xalaat maa ngi ñëw de najjaytani min makri ahlil makri falaka minni dawaamu shukri hëble yow waxal fi sa shari kawnu umri ka leen la xalaat Sëñ Tuubaa ne yàlla defal sunu dund mu tànn li nga tul xalaat lan mooy leen tul xalaat ñu bari dañoo jàpp ne yàlla téeméeri tur la yam la am yam ci kepp diiréen yàlla ñetti junniy tur la yàlla ñetti junniy tur la li la li tax ma bëgg nit ñi ma nag ci may yàlla yi nit ki lum mu nekk na nga ko ko nangul bàyyi ko lam gëm ndax yàlla la cay seet te mën na caa ame yàlla yàlla moo yaatu daj fépp xam nga yàlla lu muy bañ laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi Sëñ Tuubaa nag moom day kenn xamul maa ngi ñëw yow yàlla musal ñu ci ñi ma doon fexeel muy samay noonu fa laka min nii dawaamu sukri danaa la sant yow yàlla cant ko sax mooy dawaamu sukri hëbliye yaa waxabu fii sa cheikh yi yow may ma ci barke weer wi ñu nekk kaw nu umri yi ka leetul xadar sabab dund na mel ne leetul xadar leetul xadar mooy lan guddi goo xam ne soo julee yàlla fay soo naafila yàlla fay soo jàngee alxuraan yàlla fay soo saraxee yàlla fay soo yéenee lu baax yàlla fay sëñ Tuubaa ne lil qaadatil amalu bi lamri yëpp ci man lay dotti koo man lay baax fu way yéene ak loo yéene may fay maa ngi ñëw bàggante na ci ñetti lawxu dooru ñëw ci lawxul mahfuz umul kitaab fii lawxin maknuun fii kitaabin mubiin door a wàcc ci lawxul mahfuz guddi gëñ ko jëlee ci lawxul mahfuz indi ko ci baytul isa guddi ko mooy lekk xaram yàlla dëxëñ ci biir alxuraan sàkkir yi téeméeri ak ñeenti téere si ñabu Sëñ Tuubaa moo doy waar boo demee ci silku jawahiri fii axbaari sarairi nee na yàlla nitti junniy tur la am boo demee ca wasaaya it li wax danga ko fekk yàlla amul téeméeri tur jabbaaru muntaqimu qahaaru wadudu latif barru karimun yooyu ay turu yàlla loolu moo ñëw ci alxuraan waaye Sëriñ Tuubaa nee na benn bi malaaka yi dong moo xam beneen junni bii ci des anbiya yi mooy yonent ñoom dong ñoo ko xam yàlla jëlaat juróom-ñeenti tur yi bii mu dugal ci tawreet bii ci injil bii ci sabuur jël nag la ca des dugal ci biir alxuraan waaye secret yooyu yëpp yàlla dugal dëxëñ ci baatu bas basmala mooy bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi maa jël baatu basmala tënk ci ñetti junniy tur yàlla yëpp dugal lenn ci jaalibatul maraaxib lenn mu dugal mu dugal ko jaamiul lasraar jaamiul asraar wal anwaar sëriñ Tuubaa ko liggéey fa la dëxëñ mbootum bismillahi rahmaani rahim ñu nax ci layam muy diine mu liggéey gi leen xasina tudde ko فتح الوهاب الكريم في حروف بسم الله الرحمن الرحيم سيد با مو خم موت يالله نك انير يالله بسبي غاي دي سيف ديكو وول كين خمول فو ني سيد با كالاندري لي ليجي دني لاكزون سيني بو لاكزون نيتون سيف الرئيس xàkkajun jukkatun sa akun mays calendrier baa ngoog lëkkasun niyatun sa akun rays xàkkajun jukkatun sa akun mays nee na lëkkasun su fekkee dañoo or bésub lahadi mooy dimanche dimanche xam dafa def calendrier bi ne دون قيام ليلة الخضر بتروم نظما بما حكى أهل العلوم قد أخبروا بأنها تكون في نصف الأخير استدين ليلة الخضر يوم كويسير لأن كامل يقول لك كلام اللي يبغى أن موغنا قاعد حاج بموجي بفكي بني موجي كلا ليلة الخضر دينك تيدي قلت أجمع ليلة بأنيتك نقول بسيبرا بفندق سنتو بعد ذلك إن الله رمضان الأعظم بليلة الاثنين يوما يفهم فليلة القدر تكون أبدا في الداء بعد الياء إن من هدى من سفتي دنيوم ديك ور أنت لي ليلة القدر mu في الداء بعد الياء 19 من ci lañu ليلة القدر وإن استهل سر النسك yow ma sulasa i fa laylatu hakki fa laylatu hakki mooy ren fa laylatu hakki mooy ren màgg leen bàyyi Serigne Saliou sëñ Abo sa maam na su fekkee dañoo njëkk a woor talaata talaata la ñu woor mu ne ñu ngay màggal leetul xadar ci ñaar fukkeelu guddi ak juróom te alxames lay dëppoo ba at day tukki ren kañ la ñu woor du talaata tey la lan du alxames Sëriñ Tuubaa moo xam bis yi xam weer yi ndax araani ya rahmaanu sirra dunya ya ba adaay xalqu doona surya nee na àdduna secret bi calendrier bi la ma yàlla jox bindam la araani ya rahmaanu sirra dunya secret yi weer yi ak bis yi ak waxtu yi moom la ma yàlla jox moo tax mu sañ a wax ca bëru ma yomba ni subuuri wa ayaami gadan li shawahidun bi kaw ni abdullahi wa wa shadiru nee weer yi ak bis yi danañ ma seede ci kanam yàlla ne man rekk may jàmb jaamu yàlla si sëriñ ma bëgg nit ñi jox ko wàcc waayam sëriñ bi du nit réewum Sénégal ko tudd Sëriñ Tuubaa ab xolam fudd ko tudd Sëriñ Tuubaa ab xolam yëngu Sëriñ tubaa du moroom Sëriñ Tuubaa ku ñu war a bëgg la سيرن توبا كون ورا ياكار لا سيرن توبا كون ورا دويلو لا بالله والله تلا كل لا سند جور بي سي بير سوف خام دوري سيرن توبا واو ا سيرن توبا سا خام خام بي غاي واخ فوكو جيلي من واحد توبي علوم لا يرى في الكتب بل جاء من من حباني بالكتب نينا يالا مو مانن بيندل مو ماي تي ماي واخ Dulu lu jangan, jàng xanaa xamoo suñ tubaab du mu yonent waaye jëfam moo gën jëf yonent lu doy war laa wax waxi man duma duma la wax sama waxi bopp waxi suñ tubaab dulu wax loolu du ñu wax waxi daanu kat ñun ci bindu suñ tubaab la ñuy wax mahfuz da ko may xalima ja cay daw yàlla da koo may Sëñ Tuubaa nguurug yàlla ji yàlla da koo may Sëñ addina ji yàlla da koo may Sëñ Tuubaa da koo may Sëñ atta bañ war atta jàmm rek yi leen seen bàkkaar naa def mën na leen a yóbbu sawara yàlla di leen koo baal ci dara ji Sëñ زمن بيتعلقوا معها دنيا واخرى ساكفا نربيا جرجف ماني نيو ماني نيو نخ 15 مينيت لا دون لاي واخ باي خلال ملكني دنيا واخرى الله سبلي ولا اله الا الله نينا ادنا اك الاخره يالا مومو ماي موم ميغا خامني امول بن بور بودول موم ما عنده لختارو محمد لين ادنا الاخره يالا مولين ماي سيريف لي لي ما ديغ سي ريوي ني نان ميم ريو بامبا كو موم واخ نان كو ما ديغي